c'est bon auzu billahi mina sheytaani rajim asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu noo ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi rasulullahi sallallahu alayhi bi mu ñu mayee teewaay bi tey noo ngi nuyu boroom dëkk bi sunu baay xalif général di Tidianes suñ Babacar si Mansour di nuyu bépp njabootu Cheikh Sidi El Hadj Malick suñu maam suñu wasila noo ngi nuyu ki nga xam ni moom la ñu dénk commune de Tivaouane muy Demba Diop Sy l'honorable député Demba Diop di nuyu aussi monsieur le président du comité d'organisation COSCAS sunu mag xalifa Niang ñoo ngi dolli sant yàlla bu baax bi nga xamee ni boole nañu ci bësuru rasulullahi sallallahu alayhi wa bi nga xam ni moom la ñuy gàttalu ñëw bi ñu fi ñëw tey nag dañ ko ñëw ci ndigalu kilifa réew mi monsieur le président de la république Macky Sall mu jox ndigal suñu ministre Abdoulaye Seydou Sow mu nañu ñaari at ci ginnaaw yi célébré wuñu woon gàmmu gi mais ren taxaw nañu pour euh, euh, gën a jëmmal bés bi mu nañu daal ndigal bi nga xam ni moom lañ jox mooy lépp luñ ci doon def nañ ko gën a yokk moo tax aussi ñu tëral benn programme boo xam ne lii nga xam ne moom la ñu indi tey mooy juste pour phase préparatoire u gàmmu bi li nga xam ni moo ñu séparé gàmmu bi ngir mu ñu accompagner les la mairie de Tivaouane mais aussi le COSCAS ak association yëpp yi nga xam ni ñoo ngi yëngatu ci wàllu propreté ba nga xam ni incha allah bu ñu ko fekkee ci jàmm pèlerins yi bu ñu ñëw fii mën fi fekk ville boo xam ni dina set ñaareel bi mooy aussi jamono bi nga xamee ni pèlerins yi dañuy séjourner ci Tivaouane dinañu mobiliser l' ensemble des équipes de de l'UCG nga xam ni toll na ci deux cent jeunes yoo xam ne dañ leen recruter principalement ci programme xëyu ndaw yi ngir ñu mën a accompagner pèlerins bu loolu weesoo aussi matériel bi nga xam ni moom lañ fi indi et c' est l' occasion le maire de Tivaouane parce que nombre d' engins lourds yi ñu fi indi pour mën a accompagner gàmmu bi toll na ci vingt deux engins genn wàll gi moom moo ko indi genn wàll gi UCG moo ko indi ñu fexe ba engins yooyu aussi nañ leen maintenir quelques semaines après ngir ñu mën a def une bonne mise à niveau ba keroog euh, Tivaouane di delluwaat ci ni mu meloon am na ñu daal vraiment passe-passe ak ité ngir accompagner xalif général ak bépp njaboot euh, suñu maam Seydi Hadj Malick ngir li nga xam ni moom lañ daan def ci Tivaouane ñu gën ko yokk bokk na ci PRN yi bokk na aussi même ci recrutement pour ñu mën a yokk aussi euh, programme xëyu ndaw yi xale yi gën cee mën a gis seen bopp. c'est location aussi ma jaajëfal collaborateur UCG yu fi nekk ñu mel ni Korka Seck Seck euh, bi nekk nii sama wet madame Ka nga xam ni moo fi teewal UCG ci région de Thiès gis nañu aussi taxawaay bi nga xam ni moom la am ci këru diine yi te amuñu lu ko gën a kawe. maa ngi sant aussi Mamadou Wade directeur technique ak collaborateur yi nga xam ni ñëpp laa àndal mais di bëral ngërëm aussi xale yi nga xam ni ñoo nekk UCG. Hmm. mooy ñi nekk nii suñu ginnaaw nga xam ni ñoom ñoo yore liggéey ndax saa ne ñun ñu ci suñu biir ay kër. jaaxaan taal suñu télé taal suñu climatiseur ñoom ñi ngi ci mbedd mi di góorgóorlu loolu aussi wane na ni am na lu bees loo xam ni mu ngi germer ci Sénégal xale yi gëm nañ liggéey te autorités yi aussi ñi ngi indi réponse te nga xam ni moom la ñu war a indi maanaam ñi ngi xam ni li tubaab ji wax utilité sociale bi nga xam ni moom la propriété am ci ab réew ndax réew mi bu setul du mën investissement bu setul éducation bi du mën a jaar yoon hôpital bi du mën a baax dara du mën a baax te xale yi ci lool la ñu nekk ñoom jugee nañu qualificatif agent de nettoiement dem ci agent de propreté maanaam propreté la ñuy indi wér-gu-yaram la ñuy indi donc ñoom aussi ñu ñu war a sant lañu ñu ñu war a jaajëfal lañu wan nañu xarante wan nañu jàmm wan nañu fulla ak fayda ci seen liggéey mais ñu xam aussi ñi ngi leen di bàyyi xel ndax ñiy liggéey ci programme couverture médicale pour ñu mën a feebar bu ñu faju faju bu ñu feebaree mais aussi liggéey ci promotion interne ak ay ngir mën a gën a structurer programme xëyu ndaw yi donc vraiment maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant journalistes yi ak ñëpp ñi fi teew di naan yàlla suñu borom mu yóbbu ñu ci gàmmu gi ak jàmm ak salaam. donc euh, permettez-moi d'abord de rendre grâce à Allah subhanahu wa et à son vénéré prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous vaut notre présence ici aujourd'hui à Tiwawan pour anticiper sur cet événement euh, international qui est la célébration du, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je voudrais commencer mes propos